le ministre Mustafa Diop ministre de l'industrie ak petite moyenne entreprise a ab lim bu ci ay masque ministère bi ñu woté nak tay recteur yi ak directeur e ak euh, école yi jël euh, bi nga jox leen ko ci amna lu lo man nako ci mi nga dal ci ak adina bi autonomie bi nga xamni mo université yi nañu gel hydroalcoolique masque ak distanciation physique def nañ ko waye tay pour dañ ko doli wat muy dana dalal xelu dongo yi dana dalal xelu dongo yi dana dalal askan wi tam xamni gouvernement bi ak ministère de l'enseignement supérieur am na taxawaay boo xam ne am nañu ko ngir fegu ba nga xam ni wopp ji du dal ci kaw dongo yi